bu jilaas la Maodo Malick bu jilaas samp na béjjën fii ci Ngoyandofo Ngor doomu jilaas koni 50 wala gris Rick Ross jega 1 million o xoyenna jega 500000 demi finaliste ke o kiino jega ñi ngi am jëlema sa mbor bi jom आलू Nunozanga tishati bola koske. Nunchoganga net purgero mino net. Ino ro sit kilo kamera gole. Okay. Ino ro ro mino la gole. Acha mau de gila sa mino. Kasogara ni kaya. Kasogara. ndeysaan Maodo Xaylin Ca a seongoraka sukara yipu men kamo ngel